ay maqaam yàllaaw bisimil ilaay ci barkeb say ci fàddilu mi buru yàlla dool dinoo ay maqaam yàllaaw aousu billahi min alsheytaan irrajim wa inni u'iizuha bika wa suriyataha min alsheytaan irrajimi rabbi aousu bika min amasati shayatini wa aousu bika rabbi an yaxduruun bismillahi rahmaani rahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw ba ñu sant yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala ñi ngi julli ci yonent bu tedd bi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasalam naka noonu ñi ngi nuyu kilifa diine yëpp waaye di nuyu kilifa aada yi nga xam ne ñoo bokk euh, réew mi di senegal euh, tey nag ñu euh, déplacé waat émission bi nga xam ne mooy ëttu daara ji di ëttu xam-xam fekk si euh, kilifa gu baax ñu koy wax Cheikh Ibrahima Ndiaye Al Quran nga xam ne kenn dootu ko euh, présenté ci euh, mim réew waaye kenn dootu ko presenté it ci bitim réew Cheikh Ibrahima ñi ngi lay wax asalaamualeykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ngi lay fay nuyoo di nuyu kilifay diine yi ci réew mi yépp di nuyu kilifay aada yi ci réew mi yëpp di nuyu mbokk yi nga xam ni ñu ngi ñuy suivre fii ci biir réew mi ak bitim réew di leen dalal fii ci biir émission bi di la wax ne la bisimilah. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, naka noonu yi ñu ngi nuyu bu baax sunu mbokk yi euh, internet yi nga xam ni ñoo ngi ñuy teewlu saa su ne ànd ak ñun ci jotaayu xam-xam yu mel nii tey nag ñu ñëw fas yéene waxtaanee euh, turu màgg waaye turu am solo woo xam ne euh, euh, am na solo lool mooy ismullahil axsam Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran tey buñ la doon laaj ismullahil axsam ak i ngëneelam ak i màggaayam ngir ñëpp mën koo jëriñoo Cheikh Ibrahima mooy lan turu yàlla la woo xam ni mboolem yonent yi suñu boroom yónni woon mboolem awliyaa yi mboolem malaayika yi mboolem nit ñi nga xam ni ay boroomi xam-xam lañ mooy seen yitte ismulaahil azam tur yàlla yi nga xam ni daje nañ leen ba natt ko am ci quatre-vingt-dix-neuf ni yii yëpp ay tur yàlla lañ ñu ngi leen dëxëñaat ci wenn tur yàlla mu téeméere leen tur woowu nag mooy ismul azam ismul azam nag dafa am lu ci nekk muy benn mbóot moo waral nga dégg àdduna bépp àndandoo di ko seet moom ismul azam waaw muy ismul azam muy loo xam ne nag ñi koy seet ñëpp gis nañ ko waaye dañ koo xàmmiwul parce que dégg wax bi lu àdduna bépp ànd di ko seet te ku koy seet ku mën a doon gis nga ko waaye danga ko xàmmiwul maanaam suñu boroom ni mu jigee suñu buumu xol yi te kenn mënul ni la mi ngi nii noonu la ismul laahil ahzam demee ci biir nit ñi ñi koy seet ku jug ba def ko yitte di ko seet rek xamal ne gis nga ko romb nga ko waaye danga ko xàmmiwut <laughs> est nga xam bi muy tur woo xam ne nag ngëneel yi ak li ci doomu aadama mën a def loolu moom xëjul sax ci émission waaye ismu laal ansam daal xamal ni tur yàlla woo mën a dégg mi ngi ci biir laay alxuraan joo mën a dégg mi ngi ci biir tur woowu ñuy seet te mooy ismullahil ansam Cheikh Ibrahima kon euh, da nga bëgg a wax ne ismullahil ansam tur la woo xam ne dafa am yeneen i tur euh, yu nekk ci biir mboolem tur yàlla yi dañoo dëxañu ci moom mhm. ba pare muy tur yàlla ba pare muy tur yàlla waaw tur yàlla Seydina Ousmane dafa nekk lu yéeme waaw loolu lañ bëgg tey nga euh, leeral ñu ki ndax tey li ñu tax jóg mooy euh, waxtaanee tur yàlla. waaw gis nga allahumma lu da dégg ñu koy ñaane. Mhm. waaye yonent yi képp ku ci mus nekk ci ay xat-xat wala nga nekk ci jaaxle goo xam ne tar na da ngay bàyyi allahumma rek di rabbi rabbi nangam rabbi nangam ba ci yonent bi rabbana atina rabbi inzilni rabbi nangam rabbi nangam lu tax yonent yi suñu nekkee ci xat xat xat ni yaa rabbi mhm. mu ne allahuma lañ gën a miin de dafa am tur yàlla wu ñuy seet foofu dëgg dani moom wommat na boppam ba àgg ci suñ borom suñ borom tegtalaat ko yonent bi mu ñëw ci yonent bi yonent bi wommataat ko ba ci suñ borom. sallallahu alayhi wa sallam. ce que xam nga jublu jubluwaay bi lu mu doon. jubluwaay bi lu mu doon. Hmm? bëgg nañ nga leeral ñu ci. waaye mooy nit fu mu mën a jaar. fu dul ci buntam moom bu àggee nañ ko wàññiwaat indi ko jaar la ko ci buntam mu dem yonent bi mooy buntub jaam yi moo tax tey salaatu ala nabi foo mën a jaar yàlla soo àggee dina la jaaralewaat ci salaatu ala nabi ngir nga yéeg àggat ci borom bi door a toog ndax bu la yónnee nga dem ci kañ la yónni joxu ko benn bagaas di nga ñëwaat ci ki la war a yónni mu jox lay bagage nga yóbbul ko ko loolu tax yonente bi nekk buntub gaay yàlla yi mhm. ismul azam noonu la mel mooy dicté tur yàlla yëpp mooy seen kilifa kilifa nag dafa baax mhm. ni ko malaayika yi amee nga xam ne Seydina Jibril lañ seen kilifa nit ñi am ko nga xam ne yonent yàlla Muhammad mooy seen kilifa tur yàlla yi noonu lañ ko amee muy tam ismul azam mooy mooy mooy seen kilifa ñoom mhm. bu ci neex nag mën nga koo doxal waaye faw rek boo ciy doxal da ngay noonu waaye xam nga ni am na boo xam ne boo ko yoroon bàyyi bii mhm. muy ismullahi al waaw ndax kilifa euh, Serigne Mbaye Jaxate dafay wax ni am kilifaay li am solo soo ko amee am nga solo soo ko amul amoo solo euh, ku wéruwul yomb ba max kon ba ci kon euh, tur yi day am kilifa lépp lu yàlla bind am na lu ko yilif waaw bu ko defee nag suñ borom boole lépp moom di seen boroom moom taxawaay taxawaayu buur moo tax buur yi ngay dégg yëpp duñ buuri dara mhm. hmm? ah sëñ bi loolu yéeme na de waaw bis bu ñuy wax li ma nil mulkul yow ma doo dégg benn buur buy wax cey lillaahi wahidul xaqaar rek benn buur boobu nag mooy buur suñ boroom moomu nag Seydina Ousmane ci la nit ñi daw war koo wuti ca teel ndax yàlla moom loo xamadi xamadi xamadi xamadi bis a ngi sa kanam boo xam ne di nga xam suñu borom. subhaanahu wa mu neex la ak mu naqari la. waaw ndax euh, dëgguma la euh, seex bi euh, tey dama bëgg ñu waxtaan ci tur yàlla duñ ko génn ndax tey tur yàlla moo ñu tax a jóg waaye damay dégg ñu bëree bari Cheikh Ibrahima rawatina ñi nga xam ne dañuy yëngoo ci wàllum ñaan ku ci nekk da ngay dégg mu naan yor naa tur yàlla wii. bii su ma ci defee lii bii ci laay liggéey lii loolu Cheikh Ibrahima naka nga ci mën a eh, dimbale mbokki jullit yi ngir ñu gën cee gindeeku ndaw ñi daal su ma di digal mooy nañ sikkar nañ tudd yàlla ndax ci la mbir mi ne zikrullahi nag tur yàlla yépp boo ko dee sikkar rek yow yaa ngi ci biir waaye nag am na ci yoo xamante ni si nii obligatoire la dañ ko war a def tuub istighfar lu nit di sàkku mi ngi ci Seydina Usman salaatu ala nabi nit nit di doonee sëriñ ci doomu aadama noon la salaatu ala nabi di taxawee taxawaayu sëriñ ci doomu aadama salaatu ala nabi salaatu ala day taxaw taxawaayu sëriñ day taxaw taxawaayu sëriñ gis nga mhm. dinaa la jox benn secret boo xam ne jigéen ñi ñoo ko moom bépp jigéen bu am soxla bu ko jaaree ci yonent bi mu saafaraw bépp jigéen buy dund am soxla bu ko jaaree ci salaatu ala mu saafaraw ba ci jigéen ñi dama la bépp jigéen bu am soxla soxla ba lu mu mën doon nu mu rëy rëy ci moom bu jaaree ci yonent bi mu saafaraw kon euh, ni góor amee euh, droit saa su nekk muy ñaan Euh, mën a taxaw taxawaay julli taxaw ci kanam di ñaan ak yu mel noonu nga xam day mel ni ñaan jigéen ñi léegi euh, surtout sunu jamono ju ñu nekk dañoo yaakaar ni góor ñi rek ñoo ko war a def kon jigéen ñi it mën nañoo dimbali seen bopp ci salaatu ala nabi ngir seen soxla mën a faju jigéen daal bu mhm. setee mhm. am soxla bëgg koo ñaanal boppam yàlla jaare ci salaatu ala nabi bu ci amee limub junni ajoom boobu faju soxla moom lépp ñëpp a ko am ñaan yàlla nit ñi dong duñ ko def bàyyi ma yeeg ñëppay ñaan yàlla ndax yàlla ci boppam moo wax yonent bi ni ñaanul dinaa leen fi jële ñu may ñaan ma leen di fajal seen i yàlla moo bëgg koy ñaan waaye nag am na nuñ koy ñaanee mhm. ci biir tur yàlla yi nag mhm. dafa ci am yoo xam ne si naawal man ci mhm. kaaraange rek lay dox aar doomu aadama am yoo xam ne ci wërsëg rek lay dox ubbi nit am yoo xam ne ci yëkkatiku rek lay dox dara jàlla suñu borom mooy noo ko bëggee tur yàlla. Ah, kon bokkuñu ci ci tur wu ne ak ca la dox. waaw nekk ca la dox Sénégal nag boo gisee ñuy def erreur ci ñaanal nit mu naan gisuma liñ ko ñaanal. Mhm. mi doomu aadama bu ne ak lañ ko war a ñaanal. Ah. ak nañ ko war a ñaanalee ak heure ba ñu ko war a ñaanal. loolu nag lu mat a leeral loolu lañ bëgg nag eh, Cheikh Ibrahima nga dikkal ñu ci bu baax a baax. waaw gis nga nit. Mhm. bu amee ndigal ci ñaan am xam-xam bi muy ñaanee wut la ñaan nanguwut. ku am ndigal ci ñaan am xam-xam bi ngay bi ñuy ñaanee mhm. waroo ñaan lu nanguwul waaw ndax yàlla mi ngay ñaan moo la jox kattan gi nga koy ñaanee wa anna al quwwata lillahi jamian yàlla ci boppam moo yor kattanu doomu aadama yi bis bu la ko joxee rek di nga ko xam bari nañ ñuñ wax ni ay waliw lañ duñuy walliw ñoo la gën a xam ni ñoom dañuy waliw waaye ku suñ boroom nome di nga xam ni yow mii am nga garat mhm. kuy lijjanti nit ñi nag doo sori xam nga kan mooy sori. Mhm. ki nga xamante ni si suñu borom mi ko sàkk lay lijjanti. ndax bagage nit ñi mbiri nit ñi. Mhm. ñu ngi ci loxo yàlla waaye koy lijjanti sax bu faatoo xëy moom noo def. doo seet leneen loo lijjanti. wallaahi kon nit ñi seen jumla mooy seen borom. wallaahi moo tax doomu aadama ay mbiram. Mhm. seen naa Ousmane lépp mu ngi ci suñu borom mi ko sàkk. ah Cheikh eh, yaa ngi indi lu am solo am solo léegi eh, tur yi nga xam ne ñoo nekk ci biir ismillahi al-axzam bëgg nañ tamit nga am yoon ci jukkil ngir leeral ñu ko eh, nga mën koo dimbalee jàmm yàlla yi sunu borom subhaanahu wa taala xam naa ne daal mhm. subhaanallahi wa bihamdihi mhm. bépp doomu aadama boo xam ne yaa ngi koy liggéey soixante-dix kese far guddi soixante-dix fois képp koo xam ni yaa ngi koy liggéey par guddi mhm. téere yi indi xam-xam yépp dëppoon nañ ci ni yaa ngi fóot sa ruux subhanallahi wa bihamdihi waaw te yaa ngi dund ci biir xadratu ilahiya te ëllëg yowmal xiyaam ci kanamu suñu borom subhanahu wa taala boo dekkee sa digganteeg àjjana dara du ci dox allah moom subhanallahi wa bihamdihi Euh, loolu euh, dugguma la cheikh bi euh, ndax ginnaaw waxtu julli wu nekk nga koy def wala danga koy saxal ci heure bu la neex rek. kii moom mën nañ koy def ginnaaw gee. ginnaaw gee. waaw subhaanallaahi wa bihamdihi. a'uuzu bi kalimaatillaahi taamaati min sarri maa kooku képp koo xam ne danga ngaa bari ay noon wala nga bari ay tolof tolof. dëppoon nañ ci ni boo ko dee liggéey soixante dix. gannaaw gee suñ borom mën na cee dimbali. moom it soixante dix fois. waaw kii day fanq ay noon. day fonq ay tolof-tolof day dindi ci xat-xat day yéegee ruxug doomu aadama waaye day raxas xolam mooy euh, aouzu billahi waaw mooy aouzu bi kalimatillahi taamati min sarri ma xalaqa mhm. yaa malikal mulki zul jalali wal ikram kooku nag mooy waaja mhm. yaa malikal mulki zul jalali wal ikram bu ko ndaw ñi doon liggéey bàyyi naan diw dimbaliwu ñoo état bi kii yëg réew mi amul liggéey dina dem ba ay doomu aadama ñooy daggi bi di leen fekk si fii ak seeni alal di leen ko jox li nga wax bi <laughs> secret bi nag mooy ku ko bëgg a saxal mën nga koy werd bis bu yàlla sàkk junni waxtu woo ko ci liggéey baax na waaye yaa maalikal mulki zul jalaali wal ikram mhm. képp koo xam ne yaa ngi koy werd junni par bis dina dem ba alali adduna wër la wër la booy faatu di nga fi bàyyi nee nañ loo xam ne dinañ ko mën a meraas loo xam ni lu ëpp fukki bakkan dañ ko mën a bokk allahu akbar bis bu yàlla sàkk nga koy def wala dafa am ci ay fan yu muy yem wala ci ay weer yu muy yem yi yooyu saxar la rek yor ko yor ko moom waaye tur yàlla yi bu ki nga xam ne xëy na jotam euh, euh, ëpp na ko doole ba ba mënu ko mënu koo defee noonu euh, bu dee bu ñëwee ci Cheikh Ibrahima Ndiaye mën na ko cee lu mel ne tey ma ngoo jaaral ci weneen yoon waaw kii dañ ciy duggal nit xalwa mhm. Euh, dafa am ay yeneen yuñ koy booleel yoo xam ne dañ koy ràbb ci sirru yaasin mhm. di ko def ay sangat di ko def nëf def nëf yii dañoo am yoonu sikkar am yoon tey ji damaa génn yoonu sikkar yi waaye am na mhm. yeneen yoon waaw yaa maalikal mhm. mulki zul jalaali wal képp koo xam ne saxal nga ko junni di ko ko liggéey par bés wax nañ ni yeneeni xeet dinañ la fekk si ci réew mi nga dëkk di la jox seeni alal allahu akbar ko saxalee am na lim am na lim képp koo xam ne sax jokkoo naa man ci whatsapp bi dinaa ko ci gën a leeral ay yoon. ko ci gën a dimbali. waaw. Mm-hmm. ma ñëw ak yow ci kaaraange. bismillahi tawakkaltu ala llahi laa qawla wala quwwata illa billahi aliyul azim. Mm-hmm. jël boobu. bismillahi tawakkaltu ala llahi mm-hmm. wala qawla wala quwwata illa billahi aliyul azim. kooku 313 lañ koy liggéey par guddi. yaa ci lu muy dox. kaaraange. kaaraange kese. kii wax nañ ni kenn du ko liggéeyi cat di dugg ci biir yaramam allahu akbar ak cat ni mu ni mu ni mu ni yombee dugg doomu aadama waaw cat du ndax wax nañ ne nit sax day day catu boppam kii nag boo ko dee liggéeyi cat du dugg sa biir yaram allahu akbar kenn mun laa làmmiñ ci nit ñi bii boo ko dee liggéeyi dafa bokk ci kaaraange gim lay defal kenn mun laa njabar muy sam noon ak muy ab sëriñ ku munti doon kenn mun laa njabar bii nii ma la jox nii. ñaata. 313. cent par bis par guddi. par guddi am na yoon woo xamante ne si nit saafara lañ koy liggéeyee bind ko nga sangoo ko juróom-ñaari fan mën nañ la cee liggéeyal nag li mu bay sa bay. loolu moo am solo. waaw booba nag ñu la mm-hmm. ko liggéey liggéeyalee moom. Mm-hmm. mën naa ànd ak sax jaaro kaaraange. Mm-hmm. waaye su boobaa moom li des sa dund juróom-ñaar fukki at nee nañ di nga am garanti. juróom-ñaar fukki at da am garanti. daal di nga am garanti ci kaaraange. waaw bii ci des nee na nañ seede ni boroom xam-xam yëpp gëm nañ yàlla ci seen biir xam-xam yonent yi gëm nañ yàlla malaayka yi gëm nañ yàlla ñi nga xamante ni si ay jullit lañ te diine lislaam di seen diine mhm. gëm nañ yàlla mu wax ni nag yàlla suñ boroom wooteloo na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko matale na lim ko yónni woon ci nit ñi nit ñi ñoo ci des mu wax ni yowmal xiyaam képp ku dekki ba taxaw ci suñ borom te fa dekki woo ngëm mu ni di nga rëcc goo xam ni moo gën a diis àdduna allahu akbar da wax bi fii muy ñëw mhm. waaw fii maam boroom tubaab moo ni dal ni allahu ala muhammadin waqaadani muhammadun li samadi man bayit bii maa ngi koy soog a dégg suñ bi tey dafa mel ne da ngaa bëgg a dimbali euh, jaamu yàlla yi tey day mel ne tey loolu moo la tax a jóg ci biir euh, ismullahil axsam ñu xam dëgg dëgg tur nee na. Mhm. bi ma yëkkati dem ba ci suñu borom suñu borom moo ma jox li may jox boolewaan ma ak yonent bi yonent bi jox ma li may jox yëkkatiwaan ma ba ci suñu borom suñu boroom jëlaat mbooleem doomaade boolewaan ak man boolewaan lii nag moom maam borom tubaab ba pare jël ndimbalu nit ñi jox ko. allahu akbar waaw waaye lool lépp xam nga ko jëlee ci salaatu ala nabi ci salaatu ala nabi waaw moo tax mu ni mucc mi bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey génn goo ci tur yàlla de waaw salaatu ala nabi mhm. laa ilaha illallah surtu sirru yaasin ayatu kursi alaw nur samawati wal ard amana rasul gaañaa nga akbar gaa yooyu ko ànd ñoom xam ni dëgg rek muy dëgg Seydina Ousmane waaye ñu ñëw. des na tey indiloon nagaa yi lu ëpp lii. yaa ngi dégg indil naa leen Ousmane lu garaaw ci kaaraange. bismillah. muy wallaahu yaxsimuka minan naasi. naasi. waaw kooku. niñ ko war a liggéeylee doomu aadama Sidna Ousmane buñ ko ko liggéey lool wax nañ ni alal bu tegee ci loxoom du génn. ah loolu xanaa kon dina eh, dimbali borom loxo yu bënn yi. nga xam ne dañuy yor ba pare du mën bu tegoo ci loxoom du du génn ndax dafa am kaaraange yoo xam ni pour nga am day jafe mais kaaraange gi moo raw jalbu maanaam boo boo aaroo nii lépp luy wërsëg da lay fekk si fi nga nekk. nga xam ne mag ñi ko yoroon mm. dañuy ami tool di bay muy dox am ak jur yi ñanaaw yi ña naaw dañ koy bari barile dañuy mm. am or di ko denc am matériel am ay fas yu naar yu góor am lépp te siru bi rek lañ doon liggéey ci siru bi la ñuy liggéey waaw siru waaw suñu kabin naa si te duñ manqué dara duñ manqué dara bii am na ay yooni yooni yooni yooni yooni étape dinaa ci duggal nit xalwa di ko werdal vingt quatre mille moom wallaahu ya'simuka mina vingt waaw 24000 mooy ñaar fukki junni ak ñeent. nit ki nag mën na ci barkeelu di ko mus di ko liggéey 313 waaye am na ci yoon woo xam ne dañ ko koy defaral saafara mu sangoo ko juróom-ñaari fan ñu duggal ko ci xal wala gën liggéeyal ko 24000 yi. mu mhm. xool. Mhm. bëggoon naa laa laaj benn laaj boo xam ne nag euh, euh, man maa la ko bëgg a laaj. ndax damay dégg euh, ñu ñu ci bare bari di xeex ci wenn tur Eh, muy eh, hasbunallahu wa nihmal wakilu eh, ñoom dañ koy téye sax ngir di ko xeexee ci yenn xadara yi dama xawul nag naka la fa demee moo tax bëgg naa nga leer ma hasbunallahu wa nihmal wakilu tur woowu ngay laaj yàlla indaale na ko ndax lii fi ne <laughs> mbir yi suñ borom jox gaañ la <laughs> hasbunallahu wa nihmal wakilu nee nañ ko xas ba dugg si ci biir tur dugg si nga ci biir kaaraangeeg suñ borom bi tur wi wax nañ ni àndul ak ay xuddaam ak ay rawxaan yii ay jundun illaahi lañ àndal allahu akbar la ilaha illallah yaa ngi dégg rawxaan li muy bari bari doole xuddaam yi li ñuy bari bari doole jundun illaahi yi ñoo leen gën a bari ndax mooy armée bi yàlla bi tur moom la àndal la ilaha illallah hasbunallah dañoo wax ni kenn nit ku am kenn nit kese problème bu ko jëfandikoo mu ko jëfandikoo kenn nit ku am ak kenn nit kese bu mu ko jëfandikoo ndax boo ko jëfandikoo bu ñu xëyee dégg ñu ni daa dee xarul yaa ko rek ëpp na ca ëpp na ca kenn nit bu amee kenn nit problème bu mu jëfandikoo ni dem seet yeneen allahu akbar laa <laughs> ilaha illallah dégg nga wax bi kenn nit ku am ak kenn nit ni moom problème lu mën a jëfandikoo ci biir secret yi ba accès ba ci asbunallahu wa ni'mal wakil na fa bàyyi dem moom jëli leneen lii wóor mhm. wóor na ko ni mhm. bu ko moom ci tur rek duma ko duma boo xamante ne day ñaaw lool allahu akbar maam tur wi moo diisee noonu wala lim bi wala it lim bi moo moo mooy mooy àgg foofu tur wi nit yàlla yi dañuy nëbbu ñu leeral ko kamaal lañ koy ubbil mën na ko yor ni sax di ko jëfandikoo doo xam tur wi waaye lii boo xasee ba xam ko yàlla dafa lay tëbb yërmande joo xam ni mooy tax dootoo ñemeeti hasbunallah wa ni'mal wakiilu ne itam képp koo xam ne jàpp nga ci tur wi seede ni dëgg la ci yow nga gëm ko. ne jàpp nga suñ borom dëgg dëgg suñu borom jàpp nga ci moom. allahu akbar. tur wi pour cent lay dox ci kàttanu yàlla suñu borom subhanahu wa taala. kon kon tur wi euh, Cheikh Ibrahima euh, da nga nekk fu am solo. Euh, ndax man mii sama jëm bopp xam naa ci ñoo xam ne bu ñu xëyee bala ñoo génn seen kër tur wi danañ ko wird doo ko génn kon tey li gën a ndax damaa dégg ci say wax nga ne kenn waru koo xeexee kenn nit ko amal problème Euh, kon tur yi ban lim la ci doomu aadama doomu aadama bi mën a mën a mën a jëfandikoo ngir mu mën a wayef mu mën cee dimbali ko. waaw na ciy jël soixante dix. soixante dix fois par par par bis. waaw man sama classe gi moom. Mhm. douze mille vingt quatre mille quarante et un mille la ñuy liggéey waaye ñun xam nga daa am lu ñanu nga xam ne moom euh, dañ ciy faj aajo. kii nee naa la day xëcc alal. kon doxu rek ci kaaraange. waaye kii da mooy àdduna sëñ naa Ousmane. day xëcc alal. la te alal ji muy xëcc mooy alali dinaar wala dirham juñ xam. alal mm-hmm. juñ xam. Mm-hmm. waaw. allahu akbar abdoulaye ne ma wakil wax nañ ni ni ko junne yi di jëfandikoo comme ni ko nit ñi di jëfandikoo lañ koy jëfandikoo léegi junne yi koy werd comme ni ko yàlla yi di ko werdee. Ah, si Ibrahima amul kenn nit koo xam ne mi ngi koy jëfandikoo ci kaw suuf nitu yàlla gis ko te du ko identifié. maanaam ni ngay doxee nit ku ñuul ab tubaab romb nga xam ni képp tubaab la tur wi koy jëfandikoo ci nit yàlla yi koo romb tam am yaqin ci suñu borom day xam ni yow yaa ngi laal lii wala ni nga yore téléphone iPhone 13 bi génn léegi koo romb moo xam ne iPhone 13 bi nga yor mu gën a euh, kawe ci ci ci ci ci téléphone ñu utilisé. Mm-hmm. boo ko boo ko dee liggéey ci biir nit yàlla yi ak ñi nga xam ne dañoo am basira ak ñi nga xam ne dañoo am kasu ku la ci di jàkk xam ne yaa ngi laal tur. leer la leer la. waaw maanaam ku koy liggéey mënoon a bëtt. ndax leer guy jolli. waaw leer gi moom. noo ko mm-hmm. nattee weesu na lool na ko waaye wax naa ne daal. Mm-hmm. kenn du ci xeex ak kenn nit loolu dañ ko ci tere règlement bi moo ko tere. xam nga nag tur yàlla dictation la xam nga loolu. Mm-hmm. tur yàlla dictation la. waaw tur yàlla la. dafa am ay règle am yuñ ci interdit. bokk na ci yiñ interdit ci biir hasbunallahu wa ni'mal wakil mooy kenn du ci kenn nit du ci xeex ak kenn nit. waaw loolu bokk na ci liñ ci interdit mbooloo wala réew wala groupe. wala nga mm. bàyyi leen jël yeneen yi. ndax ismu jalaal yaa fi. Mm. yeneen yi yeneen tur yi te lépp ci biir ismu laal axsam ci la. waaw ci la bokk. ismu laal axsam. Mm-hmm. mooy buut bi mooy mbir mi. Mm-hmm. mooy yenu lépp mooy mooy mooy code bi mooy secret bi tey bu ñu nit dëkkuwaay yi ñu dëkk yëpp fu muy fuñ fuñ dëkk ci kaw suuf si. ismu laal axsam bu ñu ko doon wax ak tur yi tur yëpp dañuy tege ci kaw ismu laal axsam mooy moo leen yenu am na nag ñu koy jëfandikoo waaye bariwul ay benn benn rek ñoo koy jëfandikoo ndax loolu dafa nekk euh, lu suñ borom kasra ci biir gaa yi. Mhm. waaye nee naa la ñi koy seet ñëpp gis nañ ko duñ koo xamul. Mhm. am na solo Cheikh Ibrahima xam naa ne euh, euh, turu yàlla yi bari na lool waaye nii ñu ni ngi ñu ko tojalee Euh, dana ci am solo lool ngir mbokk yi mën koo jariñoo bu baax a baax a baax xam niñ ci duggee bu baax comme li nga ñu leer rek ci hasbunallahu wa ni'mal wakiil am na solo ma gis euh, nga feggoo ak butéel butéel yi nag euh, xaw ma jaaxal tuuti ndax day ñetti couleur yu bokkut te ñu ne ñu ñuy wax tur wi Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran butéel yi bëgg nañ nga indil ci ay leeral lan mooy njariñul butéel yi wala ci alquran lañ ko liggéey wala ci sunguf la wala ci ismul laal axsam jiñ nekkoon léegi. waaw biteel bii. Mhm. téeméeri garab lañu boole ak téeméeri tur yàlla liggéey ko wax naa ko ci sama émission yu wees yi ni lii lu waay niiw niiw niiw niiw wërsëg su ko laalee am wërsëg. moom ci biir alxuraan lañ ko lañ ko lañ ko lañ ko lañ ko lañ ko jukkee. tijjeeku dong moo ko tax a jóg Seydina Ousmane lu nit tëju tëju tëju boo toogoon ñaar fukki at yoo xam ne amoo dara kii boo ko laalee juróom ñaari fan suñu borom ubbi la allahu akbar dafa wér kii kii tur yàlla lañ boole ak sungu liggéey ko day ànd ak ay sarax wala day ànd ak ay wird beneen bi wala moom rek beneen bi moo am sarax bii moom bi am téeméeri garab yi moom dafa am yenn boppam beneen bële nag moo am sarax bi nga xam ne si nii moom lañu liggéey ak si yi moom sarax bi mën naa doon lu ne waaye sarax bi moom faaw ñu am lu ñu moo lu ñu lottal mhm. ndax dafay dox mhm. bii sangat bii dafa am rawxaan am xuddaam am junne am leer moom butéel bii nga yor nii butéel bi ma yor <laughs> xam naa su ma suñu suñu noppee ci euh, waxtaan bi rek dag ma ci jéem a sol benn nag ki Ousmane nee naa la pour mu ubbi doomu aadama mu lu doomu aadama bi tëju tëju mënut a génn ak moom juróom-ñaari fan. moom bu moom butéel bi nga ñaari fan. allahu akbar mënut a génn ak yow. kii tur yàlla wér la téeméeri garab ak téeméeri tur yàlla lañ boole liggéey lii seen mooy butéel bii. nga xam ne lii liggéeyuñ ko ci benn fan moom. déedéet du liggéey benn fan. Mhm. dafay am ndax wer am na ci boo xam ne. moo ñu waaw ñëwaatu ñu ci biteel beneen bi waaw bu ñuul bi daal. bi nga gis la. lii lum lay niru. lii de ci numéro yi jox na ma nen de. waaw. Hmm? yaasin la waaye ci kun lañ ko tëgg. li nga gis nii ay yaasin yu ñu bind wërale ko. ay yaasin yu ñu bind wërale ko. waaw waaye ci ci lañ ko liggéey. moom la ñuy booleeg lii. nga xam ne yow sa dara génnut alxuraan. déedéet man ci ismulaal ansam lay yëngu waaye gis nga biddéet bii dañuy wax ni bu ko jox ku dul taaw. ku ab taaw. waaw xam nga loolu lu ci mag ñi jublu mooy jox ko boroomi responsabilité. ndax taaw day am ñu ko. est-ce que. kii ku ko jëfandikoo faw nga yilif nit ñi faw nga am loo yilif moo tax kilifa yu mag yi nag laa koy faral di liggéeyal wax dëgg yàlla mm-hmm. Mm-hmm. ndax kii ku koy jëfandikoo moom di dañ ci ñu lay yilif yow faaw nga yilif nit ñi noonu la gaawee ci ubbee kaay kii wàllu wërsëg rek moo ko tax a yëkkati bu kaaraange baa nga ne la après moom la ñuy mm-hmm. terminé waaye bii kii wàllu wërsëg rek moo ko maanaam fa boo ko jëfandikoo faaw nga yor dara. da ngay am xaalis. faaw nga yilif dara daal. waaw faaw nga yilif gaa yi. Mhm. <laughs> waaw boo gisee nag mooy <laughs> seeni wërsëg dinañ la fekk si fi nga nekk moom. daa am béykat xam dafa am ay façon sëriñ bi. gis nga fii daa am béykat xaal daa am luñ la luñ dugal. Mhm. ci digg bi. ndax gis naa ne digg bi vide la dara nekku fi. waaw digg bi vide bi nag. waaw. dañuy woo malaayka yi. Mhm. woo rawxaan yi. woo junne yi woo xoddaam yi. boole koog yow ci ndigalul yàlla kasra tëj moom mi sàkku waaw moom mii sàkku mhm. moo tax moom mii sàkku daanaka li koy jox du ay niti kese waaw day am luy dugg ci xolu doomu aadama yi di leen dévier ci xolam moom mhm. nga xam dootu mën a bari tiñ noonu ngir doomu aadama mën laa jublu waaw doomu aadama dañ koy jublu dañuy ànd ak moom di jëflanteeg moom ci ndigalul yàlla ndax lépp nag dañ ko tënk ci ilaa bi isnillahi allah ci ndigalu suñu mm-hmm. beneen bi bëgg nañ ko ñu ci ñëwal moom it ndax tey li dafa bari te bokkunu bi xam nga ñaari couleur lay ñaari couleur ndax gis naa lu ñuul ci kaw waaw gisoo gis lu bi fi mu ne benn couleur la benn couleur la joxe waaw bi ñaari couleur la hmm? gris ak lan moo waral loolu si ci benn butéel waaw ci benn butéel waaw ci benn butéel benn bi dafa ànd ak téeméeri parfum butéel bi ci boppam ni mu yëkkati lii ci kaw xam nga butéel day wax ndax lool lool man xawoon na ma jaaxal tuuti <laughs> day wax de ndax benn ndox moo fi nekk voilà ndox mi loo ko yëngal yëngal boo ko paree rek moo aju ci kaw indiwaat couleur bi tëgg ko mu doon ñaari couleur téeméeri parfum la àndal dafa lay certifié ni exactement parfum yi dafa am ci am niin moom lay aj noonu lépp lu nekk ci nit ki bu ko jëfandikoo day génn comme lii li muy génn fi ne lii borom koy dégaasee ci kaw hmm, gis naa ko lépp lu nekk ci nit lu mu mën a doon njabar làmmañ cat luñ def ci moom ku ñu xeex lépp lu nekk ci yow ci ay tolof tolof boo jëfandikoo bideel bii day génn ci biti la jëm moom la sistife nii kii dañ koo liggéey fi nga koy gis nii dafa am ay xuddaam am ay rawxaan am ay jinn yu ci biir yoo xam ne dañoo liggéey seeni i ak seen i tëj ko ci mhm. yaa ngi dégg kii ba defee ni moon la ci li liggéey te isim bi dañ lay bàyyi nga nga nga nga wax jeex yàlla yi. xaaral daal jot waaw tey faaw ñu tey waaw daal jot kii déedéet teguñu ko ci biir. ci yaasin bi ubbi moo bii koy liggéeyee dañ koy liggéey ci yaasin bi nga xam ne dañuy ubbi mu nii dugal ci woon yàkkaatu. waaw ah, maanaam yasin la. waaw ubbi miim yi dugal ci wa in yakadu lasina kafaru waaw tëj ko tëj ko moom lañ koy tënkee suñu paree nag dugal ci ismu laal ahzam yi ak secret yi sirru yi yëf yëfaan yi waaw moom noonu lay doxee tey dama laa génneel ay quelques bagages waaw ndax dama dama yoo xam ne sëñ bi yëg na waaw man dama may génne bagages yi sax waaye dafa jot ci ñu wan ko nit ñi mm-hmm. Mm-hmm. bañ xam ci liñ toog waaw te te ndax ndaw ñi bëgg nañ ku leen dimbali mag ñi soxla nañ ku leen dimbali ndax man nee naa la jaxasoo na sang bi. Euh, yàlla dama dimbali Seydina Ousmane damaa yàgg ci ab gëstu. Mhm. yow mii ci àll bi daal la xamee. wallaahi wallaahi. téeméeri xam-xam yu bokkul am naa ko. wallaahi yàlla xam na ko. man maa xam leen lu ne. waaye nag nit ñi loo leen mën a xamal lu dul suñu borom yaa ngi leen nax te fii kenn du fi nax kenn ndax yaakaaru benn jàmm du fi tase. ndeysaan. waaw looloo tax tey ma génne la bagage yi ñoo waxtaanee nii. Euh, jërëjëf Cheikh Ibrahima Ndiaye euh, tey nag ma. gis fi kaamil boo xam ne eh, yàgg na ma def eh, eh, jotaay ak boromi mi xam-xam yi waaye kaamil bu mel nii bu rafete nii bu tedde nii daal Cheikh Ibrahima vraiment gëj naa ko gis ci samay bët kaamil bi Cheikh Ibrahima mhm. ku ñu wax sëñ Moustapha moo ma indil jële ko Arabie Saoudi manto bii ma sol ñett la ci indi ndax col gi maa ngi doon bëgg a ñëw ndax eh, da sol sa garab bu bu rafet waaye jël mantu bi teg ci kaw. montre bi ca taraanga ja la bokk. te montre bi daa mel ne en la. waaw yaa ngi koy gis nii. ñu indil ma ko jëleel ma ko Arabie Saoudite. Mhm. mu sedd sama xol lool moo tax ma wane ko ba réew mépp gis ko. ndax teraanga ku la defal da ko. waaw loolu day wane ni rek nit boo nekkee ci lu baax. suñ borom nga te nekkal. lan ngeen séq ba mu ba mu jëfal la teraanga ji. waaw ñaanal naa ko xam naa daal li gën a gàtt man indil na ma teraanga waaye bi muy ñëw nii di indi teraanga ji daa fekk ñu indil ko ay teraanga këram te maa koy ñaanal. yaa muy ñëw daa ñu indil ko ay teraanga këram. maa ko doon ñaanal ba muy nekk États-Unis mu am ay jafe-jafe feebar ak jafe-jafe xaalis wax ma ko ma duggal ko xalwa ñaanal ko yàlla jox ko ay garab mu naan feebar bi ko daloon wér plek ba mu dellu mel ni jeune kaamil bi bi mu koy indil matul ñetti fan waaye bu ñëwee fekk na këram ñu gaar fa oto buy jar quatorze millions ab Ford ab xaritam ko may waxuma ko dara. nee naa ko la kon aji ji bokk. waaw ah. Mhm. ah waaw. <laughs> moom woo nañ ko ni ko oto baa ngi nii caabi jaa ngi nii te xamul fu oto jóge ak jóge. wallaahi man ko boo ànd ak borom boromi kéemaan kéemaan dong nga def. wallaahi kéemaan gi nga def. wallaahi moo indil kéemaan. <laughs> nee naa la si naa Ousmane nit ñi defuñu. wallaahi wallaahi foo gis nit daw jëm fa. wallaahi Cheikh am na loo fa ne. wallaahi Cheikh bi dëgg la. yaa ngi dégg. dëgg la su ko defee jaam yàlla yi tam. Mhm. boo gisee ñuy feeñal yii ñuy def la jëflanteeg ñun. Mhm. nit daa amul lu dul boppam gis nga kii ngay gis ni not dis la ab taalibi laa ñaanal xolam sedd mu jox ma ko barki démb mu ngi nii am na ci bu war a jóge États-Unis iPhone 13 fold bi la ab taalibi laa ñaanal xolam sedd mu jënd jox ma ko waaw ndax damay dégg ci say kàddu nga ne li la gën a neex ci sa àdduna mooy nga ñaanal nit mu woola la ne la sëñ bi la nga ma doon ñaanal suñu borom bi nangu ne ko sama xol sedd na man ci loolu laay fayeeku amur bi gën a ri yow mooy lañ may fay mooy sama solde. allahu akbar. dama ne man bu ma lay ñaanal li ma bëgg nga fayee ma ko mooy sa xol sa euh, sa ñaan nga nangu na. mooy sama weexal. boo ne ma sa ñaan gi nangu na rek weexal nga ma. ndax loo ma jox ci teraanga fekk nga man daanaka daal. moom yëkkatituma teraanga àdduna nag yooyu waaye li ma ñor ma koy dajale mooy ñaan gu nangu moom lay dajale ci la ci laa bëgg am budget <laughs> alhamdulilahi rabbil alamin euh, jërëjëf Cheikh Ibrahima Ndiaye mu mel ne euh, li ñu amoon ci euh, waxtu day mel ni jeex na kon Cheikh Ibrahima sa kaddu yu mujj insha allahu taala waaw di sant yàlla rek moom mi ñu dooleel ci lii ñu nekk ndax am na ñu ci nekk ne ci jafe-jafe kon bu ñu yàlla tànnee dàq ñoo ñaan ci réew mi waaye ñu bokk ci nit ñi gën a jublu te gën leen a wóolu gën a am yaakaar ci ñoom loolu ak sant yàlla la mm-hmm. yàlla moomu nag ñu ngi koy sant ci waxtu yépp yow ñu lay fàttali ni nit ñaa ngi lay laaj lool ne nañ foo ne <laughs> <laughs> yow loolu nag nga waxal leen sa bopp nee nañ foo ne nee nañ ngay ñëw ndax say mbir intéressé na lool alhamdulilah baax na jazakumullahu xeeran seen ndax eh, nit ki boo si siqut ak moom lu rafet yaakaar naa ne du la nemmee ko bay laaj fa ne kon loolu ñu ngi ciy sant yàlla suñu borom bu baax a baax a baax eh, di sant nag suñu man bi ñu àndal saa su nekk ñu ngi koy ziare di ko ñaanal tawfiq sunu borom euh, euh, sëriñ kan macha allah liggéey bi rafet na mbokk yi euh, foofu la ñuy yëkkatee bi ba ci yenen yeneen jotaay insha allahu taala wasalaamu aleykum kullukum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërë ngeen jëf ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli ay maqaam yàllaw bisimil ilaay ci barkeb say ci fàddilu mi boru yàlla dool dino ay maqaam yàllaw Bienvenue sur Salam Vision